réew mi ñoo ko moom réew mi suñu réew la euh, ñu xam ni tamit euh, même bu bu le ministre de l'intérieur ne force reste à la loi euh, ñu avons, comme ni rek euh, la souveraineté euh, est au peuple donc peuple bi moom souverain loolu de ministre de l'intérieur y a comme ñun Nous, nous ne ay sénégalais lañu am devoir devoiru manifester am nañu devoiru marcher am nañu devoir aussi protester bu dee dara li ngeen di doxalee du yoon war nañ leen di wax ni li ngeen doxalee du yoon rawati na ko xamanteni il n'est pas élu il est nommé par décret donc kon yow na nga seetaat say wax booy wax nga xam ni wax dëgg yàlla leadership dafa am solo war ngeen a dem seeti ji Pape Dia mu jàngal leen leadership mooy lan euh, booy wax ngay dal xam ni ngay communiqué communiquer boo xamante ni boo yuuxu doo gëdd nit ñi doo wax di bonde doo wax di fëgg dënn doo wax di lu xulli ay gët maanaam yooyu yëpp dafa bokk ci ay caractères yoo xamante ni boo ko rek xam ni kii c'est pas un leader man da ngay ministre euh, de l'intérieur nga déglu ko nga déglu l'ancien président du CNG muy euh, Alioune Sarr mais da nga naan Alioune Sarr mi moo ëpp xam-xam téeméeri junni yoon le ministre de l' intérieur mais on a un problème bu bu bu doy waar au niveau du Sénégal bu ñu demee ba ministre euh, président CNG ëpp leen xam-xam y' ya y' a a un problème y' problème donc nañ jël ñu fal ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a fal ci poste yi nga xamante ni dañ koo mérité man je préfère Alioune Sarr nekk le ministre de l' intérieur un ministre de l' intérieur arrogant ah bo xamanteni ni mo nek ci ci kanam télévision bi ñu nek ci ben tension bo xamanteni ni kenn xamul demé mu les jardeurs nga ñew di yok ci euh, yok ci xalmi kaw kon ba ci mang lay sant bu baax bi la remercier ñu jéggalu nak wax dëgg yàlla ndax am na nu ñu communiquer tey te bëgg ñoo communiquer noonu waaye suñu réew ñun ñëpp ñoo ko bokk ndaxte xaajoowuñu ko séddoowuñu ko c'est notre Sénégal te lépp lu ñuy def maanaam ñu fësal ko wala ñu bañ ko fësal ñu ngi koy doxal ci suuf incha allah rabbi ba Sénégal revient au Sénégalais. justice am ci réew mi di ko ñaan nag la président de